maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay ñëw pour jox leen benn information bu concerne détenu bi ñuy wax Baye Modou fal alias booy Djiné nekk fële si QHS quartier du haute sécurité si prison bu Camp nga xam ne foofu la rëcce woon rëccam bu mujj bi Baye Modou nag dafa defoon ay njombe tribunal àtte ko maître Doudou Ndoye bokkoon na ci ak ay avocat yi nga xam ne dañ ko doon jàppale te laaj ñu ko dërëm maître Doudou Ndoye njombe yooyu tribunal atte woon na ko ci ba tegoon ko ci ay daan ba mu tëdd ko ba daanu ko jeex na takk jamono ji jeex na takk li ko fa dese woon ñu di ko werante mooy évasion évasion bi juróom benn weer la waaw boo rëccee kaso dañ la siy yokkal yeneen juróom benn weer loolu mooy évasion bi mooy rëcc bi mais lépp lu mu mës def rek yoon àtte na ko si te tëdd na ko ba mu jeex maanaam ren ji la bàyyi Modou Fall am fukki at ci kaso bi gaañu na ci diggante bi doomam gaañu na ci diggante bi jabaram ñaan na ko baat mu des aawam bi nga xam ne mi ngi koy muñal di ko toppatoo di ko jàppale ak jigéenam mareem Baye Modou nag li tax muy grève dane Casamance juge bi nekkoon Casamance jamono yi Samba Sall di dund dafa yónnee ab dossier fii tribunal bu Dakaaru ne sàmba Sall na ko si enquêtal Baye Modou Fall Baye Modou bañ ko waxee loolu ci biir kaso bi moom nee na xamul loolu xamul fan la dossier boobu jóge nee na dossier boobu concerné wu ko bokku ci te moom avocat waa tribunal ñëpp nee na lépp lu mu mës def si àdduna bu taxawee tribunal daf koy avoué moom nee na dossier boobu ñu jële Casamance bëgg ko ko sëf ne moom moo ko def juge bi joxoon ko Samba Sall yàlla na ko yàlla xare àjjana pour mu pour commission rogatoire lañ defoon pour que juge bi déglul ko Baye Modou Fall Baye Modou Fall alias booy Djiné loolu la continuer di contester kon ñi ngi continuer di ñi ak ak yelleefu ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw ndax nit bu defee njombe tribunal deg ko ay daan mu tëdd ko ba mu jeex wax sa dëgg yàlla dañu ko war a bàyyi mu dem këram si diggante bi ñàkk nga doomam ñàkk na juram ay mbokkam fi ñuy jóge di ko seet dafa sori dëkk bi ñëpp a koy ñaanal njekk ak teraanga Baye Modou bu doon jamono yi muy def njombe xale bu ndaw la buñ ko yóbboon si maison d'accueil wala centre de redressement pour mineur tey du leen ëpp loxo bay rëcc si kaso bi kon maa ngi interpellé waa administration pénitentiaire ak le ministre de la justice ñu taxaw si situation wu Baye Modou Fall nu mu gënee gaaw nañu ko bàyyi pour des raisons humanitaires ndax maître Malick Sall waxoon na ne dinañu ko bàyyi moom moo ko waxoon kon nañu bàyyi xale bi mu dem ñibbi par fukki at def na ko ci kaso bi lañ ko la mu defoon yëpp tëj nañ ko ko mayuñu ko dara tëdd na ko ba mu jeex xel nanguwul ñu jëlal ko beneen dossier Casamance ñëw sëf ko ko nekk lii nii yaa ko def alors que moom nee na deful loolu loolu la mës wax ne def ko te ñëpp xam nañ ne lu mu def day taxaw ne moo ko def lu mu deful day taxaw ne defu ko te dossier boobu Baye Modou Fall mësu ko nangu mi ngi nekk nañ di def grève de la faim bu metti fële si QHS di quartier de haute sécurité maa ngi interpeller les autorités judiciaires les droits de l'homme si situation ñu dimbali ko ndax xale bi wax sa dëgg yàlla sonn na